Salam, dañuy ñëw ci benn parti boo xamante ni mën nañ ne parti mère la muy parti démocratique sénégalais. Mhm. di PDS. Mhm. depuis lors on dit que Karim Wade mooy seen candidat. Mhm. ñu ngi yàgg toog di ko xaar kenn du ko gis. ñu exilé ko Qatar. jamono ji ñu ngi jëm ci ay élection présidentielle. nee nañu ñoom Karim mooy seen candidat donte L29 voté nañ ko assemblée nationale retrouvé na ay éligibilité ba tey jii gisuñu Karim Wade. tey est-ce que yow xalaat nga ni que Karim peut su cofeel bi sénégalais yi amoon ci PDS lañ ko ci Karim. temps Sénégal mooy dëkk boo xam ni si man si sama gis-gis nag ba ma juddoo ba léegi ba ma ràññee ba léegi Karim mun na ñëw suba. Karim nag du ñëw gum tànk nawet bi jeexul. lu tax tànk nawet gee tax. lu muy daw ci su Dakar ne kekk. Ah. si lay ñëw def benn buzz. Karim a venir incha allah. ah oui foofu mu ñëw. est-ce que xool nga. Ah,

kenn xamul. ñu gis ni que li teg woon ci ndoddu Karim moo teg woon ci ndoddu Khalifa Sall. maanaam dañ leen condamné woon ñu perte seen éligibilité. waaw mënuñu bokk ci élection mënuñoo fal kenn mënuñu leen fal. Mhm ginnaw bi dialogue amé comme ni ñu ko waxee sànq loo gis ci aduna waxtan la Abdoulaye Wade du doon waxtan ñu tëj ko mu génnaat nek ministre mu waxtan mhm. ginnaw lolu ñu voté ben loi fële ci assemblée nationale muy L29 mhm. bi leen retrouvé seen éligibilité ñu mëna nek candidat mais fa amande ko teg won sen ndodd mhm. Karim Wade cent trente huit milliards moo tegu ci ndodd te képp ku yoral état xaalis so amé parrainage ak am 30 millions de caution so démé conseil constitutionnel do dial kii di Khalifa Sall bi ñuy xamal ni que tey fay na amende mais Karim déggoo bu ñu ci dara

voilà léegi sans sans sans Karim PDS ne. mais tey sànq Amadou Ba mooy gagné élection est-ce que Karim ne fera pas mal comme ne Sénégal sont nostalgiques est-ce que tay duñ ko nam xol cofeel biñu amon ci Ablaye Wade ba porter Karim au pouvoir. dina Sénégalais xam nga lañ lañ gëm fu nek def nañ Karim Wade moy moy Ablaye Wade. Karim n'est pas Ablaye Wade Ablaye Wade son mam la. son papa la. Ablaye Wade était généreux. Ablaye Wade moo yak yalla na ma yàlla baal si wax bi mo tamal Sénégalais xaalis. moo yàq sunu dëkk bi. nit ñi def ci xaalis tey da ngay juddu tey doon milliardaire tey. loolu Ablaye Wade da ko tàmmal Sénégal yi. nit ñi nag def nañu milliard caaxaan la caaxaan du xaalis bu weextaan la mais jënd xaalisu àddu xaalisu réew ku ko jël lekk ko dina feeñ sa njaboot ndax ñun gis nañ ko xaalis bu lewul. boo ko joxee sa njaboot dina feeñ sa njaboot. d'accord ndax dinañu leew nday drogue mu neex la mu naqari la nag xaalu askan xaalis bu ñu war a yóbbu ci hôpital xaalis bu war a yóbbu ci tool yi wala dimbalee doomu aadama benn nit lekk ko dama ne la ñi ko ñi ko ñu gis nañ ci daal. d'accord waaw. comme ni ko waxee xaalis bu lewul képp ko jox sa njaboot di nga ko gis donc foofu la taxaw.